tout à fait donc si là, effectivement vigilance bobo, moo waral tey Pastef continuer mm-hmm. donc suñu activités moi c'est-à-dire décider Macky Sall mu comme ko ba mu génn ci buntu bi parce que Macky Sall tay dafa violer constitution bi nga xamantene moy suñu dëkk bu ko sénégalais tay mënuñu seetaan li nga xamantene injustice bi nga xamantene mom la Macky Sall euh, bëgg imposer ko sénégalais sénégalais ni non PASSEF a décidé de suivre ses activités Moi, dañuy Gungé, pour fatiguer Macky Sall ne ko dëkk dafa am ay règles am ay ay loi yoo xamantene daf ko war a respecter Macky Sall a décidé de ne pas respecter la loi d'où cette raison de ce putsch euh, constitutionnel bi nga xamantene ne moom la am ba sénégalais yëpp génn pour jàmbaarloog Macky Sall dafa war a respecter par A ou par B dafa war a respecter li nga xamantene ne moom le peuple bi dëgg mooy moom considérant quatorze de l'article constitutionnel nee na ko dafa war a def jeexal mandat bu jeexalee mandat mënul euh, reconquérir encore un autre mandat pour mën a toog ci ci réew mi article considérant 14 wax na ko donc loolu da ko wara respecter par A ou B ba pare dafa war a joxe date ci ni la wara joxe date yi parce que élection bo xamantene ne dafa waroon am le 24 février tay dafa war am par A ou B buñ ne nag dem nañ ba nga xamantene gis nañ nak temps boobu juste na dafa war organiser dans les meilleurs délais permettre euh, tous les partis mën préparer pour mën def au minimum un temps de campagne bu correct bu permettre ñu mën dem ci saa si choisir benen président li nga xamantene mom moy choix sénégalais motax suñu manifestation yi nga xamantene mom lañuy la depuis bobu day continuer ba Macky Sall jox li nga xamantene mom la sénégalais yello parce que il est capable de tout hein. tay bu démé ba ba changer constitution bi donc ça veut dire qu'il est capable d'autre chose ñu koy xaar nak on reste à l'écoute mais duñu empêcher li nga xamantene que mom la réew bi wara am li sénégalais yello moy choisir benen président mom waruñu bu violer loolu suñu constitution te dañ ci taxaw tem ba nga xamantene joxat peuple bi li mom moom. bu ma bu ma la poser question parce que amna ñu bëri ñu ngi lam lamé ni Macky Sall mu na fexé mu xaar ba au delà du 2 avril mu dog organiser élection bi té bu boba il est capable, en tout cas, euh, euh, dans sa volonté toujours d'instrumentaliser la justice pour nous faire, ben, Basirou Diomaye faillit être candidat. Il y a lolu, est-ce qu'il y a un prévoir Waouh C'est la lolu du commun, hein Non, non, non. C'est là. C'est là. Lolu, moi, objectif. Ah. Lolu, moi, objectif ñun xam uh-huh. nañ ne que li tax euh, uh-huh. Bassirou Diomaye taxaw euh, pour temb pour bokk ñoom loolu mooy seen problème actuellement te Bassirou Diomaye amul dara lu war a certifier que warul bokk ci élection yi ndaxte même euh, le président Ousmane Sonko dañu violer ay loi am tey dañoo violé li ay li nga xamante ne que moom la ko loi bi may mooy conseil constitutionnel voté na ne que président Ousmane Sonko dafa war a bokk dans tous les sens ñu jël ñoom si seen coobare bopp ni candidat bi du bokk bu défé dafa am yeneen candidat yo xamante ñi ngi bokk ex Pastef comme niñ ko waxé té nga xamante au niveau de la loi ils ont pas de compte à rendre ak lu mu mënti doon euh, loi bi ak constitution bi néna dañu wara bay ñëpp dem élection